asalaamaaleykum mbokk yi déglu dalee nag jàmm ginnaaw coppite yi ñu indi ci wàllu yoon rawatina nag coppite yi am ci biir cour suprême ak cour d'appel yi tey jii colikaay bii di Sud Quotidien jox na kàddu ñi nga xam ne ñoom ñooy xeexal ak ak yelleefu doomu aadama yi ñu tuddee leen ay droits de l'hommiste ngir ñoom it ñu daal di jukki jëmale ko ci wàll gi ni mel ndaxte dañoo gis ne keroog ba ñu daal di indee ay coppeeku ginnaaw conseil supérieur de la bëri woon na coow mu am ñoo xam ne dañoo mer am ñeneen ñoo xam ne dañ cee kontaan ku ci mel ni say digga Gassama nekk directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal moom mu daal di gis ne coppite yooyu daal li mu gën a indi moom mooy njàqare ak tamit naqar ci ñenn ñi nga xam ne ñoom seen bëgg-bëgg àndool ak bu njiitu réew mi loolu sax moom moo tax ba ki nga xam ne moom mooy Seydi Gassama gis ne ñu dëggal wàllu yoon fii ci biir Sénégal nekkagul lu fi am boobu fekk na ne Alassane Seck nekk secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains moom daal di gis ne indépendance ga ñuy wër indépendance ga ñu bëgg suñu wàllu justice loolu tamit gisaguñ ko ci ñu fàttali ne ci wàllu conseil supérieur de la magistrature boobu la ñu daal di tabbee ki nga xam ne de moom mooy Oumar Maham Diallo mu nekk doyen des juges d'instruction bu yees ci biir colikaay bi di les échos ay nattangom nekk ay avocat ñoom ñooy yëkkati seen kàddu jëmale ko ci moom les échos seq waxtaan ak maître Clédor Ciré Ly maître Moussa Sarr maître Baboucar Cissé ak tamit maître Ibrahima Meng ci lu jublu ci poste premier ministre bi nga xam ne dañu ko fee delloo si waat colikaay bi di las mi ngi ñuy xamal ak gouvernement bi ñoom ñëpp ña ngay tàccu ñoom nee nañu gongoof fu mu nekk ni joriñ gu njëkk dafa war a dellu si waatee ci ni mu gën a gaawee Oumar Gueye di xam ne mi daal di def maanaam delloo si fi ne moom mooy poste la bu kenn foog nag ne njiitu réew mi xamul fu muy teg tànkam ci biir julikaay bi di enquête professeur Ismaïla Madior Fall di ko dëggal moom mi nga xam ne moom moo nekkoon joriñ gu ñu dénk wàllu yoon fii ci même réew daal di gis ne du lépp lañ mënoon teg ci ndoor du njiitu réew mi faw mu amoon kenn koo xam ne moo ko ciy jàpp jàppale léegi li am ba des moom mooy xool ba xam kan la ñu war a mën a tabb mu nekk jëwriñ gu njëkk autolikaay bii di l'info ma ngay def ay calcul calcul yi ni mel it moom la njiitu réewum Sénégal di Macky Sall di def ndaxte ki nga xam ne la ñu nar a tabb ngir mu daal di nekk joriñ gu njëkk faw mu daal di nekk koo xam ne ñëpp ànd nañ ci autolikaay bii di l'info gis ku ci mel ni Amadou Ba moom am na expérience ci biir gouvernement bi ak tamit ci wàllu état rax ci dolli ku xarañ la ci wàllu politique te it moom nekk na nit koo xam ne ñëpp ànd ak mooma suñu naatangoo yi ba léegi pare guñu ndaxte gis nañu tamit ku ci mel ni Aminata Touré moom sax nekkoon na fi joriñ gu njëkk nekkoon nit ki jiitee conseil économique social et environnemental nekkoon directrice de campagne bu njiit réewum Sénégal di Macky Sall moom it ku dëggu la ci wàllu liggéeyam mun na dellu si waat kon ci poste premier ministre l'info daal di mujjeel ki nga xam ne nag moom mooy Idrissa Seck di ñu xamal ne mën na nekk Macky moom lay tànn li am ba des julikaay bi di l'observateur ñoom it ñu ngi xool ba xam kan moo gën a jekk ngir ñu daal di koy teg ci bopp gouvernement bi loolu sax moom moo tax ba seq na waxtaan ak ku ci mel ni Cheikh Yérim Seck Alioune Ndiaye ak tamit docteur Cheikh Diallo ñoom ñu daal di gis ne ñetti mbir moom moo mën a am benn bi moom mooy ñu jël benn technocrate koo xam ne daal du yëngatu ci wàllu politique wala boog ñu jël koo xam ne politique dong daal lañ ko xamee ñu daal di koy teg ci boppu euh, gouvernement bi ñaareel bi moom mooy ne kii nar a nekk joriñ gu njëkk mën naa mu daal di jóge ci parti bi di APR ñetteel bi moom mooy ne ba léegi mën naa am sax Macky Sall la xamul kan la fay teg li am ba des moom mooy ne bés bu ñu daal di tabbee ki nekk joriñ gu njëkk gouvernement bi faw mu am ay coppite yuñ ci nemmeeku cuulikaay bii di tribune du ñu xamal yenn ci ay joriñ yi nga xam ne dañoo nemmeeku ne ay gaaf dong lañ def bu leen yeboo ñu daal di waajal seen bopp ñu deseen di ak njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ndax ci cuulikaay bii di le soleil bi ngi ñuy xamal ne démb ma nga woon ca Kinshasa ngir teewee conférence bu njëkk bu chef d'état et de gouvernement ñu daal di waxtaanee ci lépp loo xam ne dafa jublu ci nekkinu jigéen yi ak soxna yi foofu sax la njiitu réewum Sénégal di Macky Sall la daal di xamle ne doy na sëkk xoxatal ak xoxoñal yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci kaw jigéen yi moom ci boppam daal di gis ne mënul comprendre fi ñu toll nii ci jamono ji mu am yenn ci ay métital yoo xam ne ba léegi ñu ngi koy def ci pàcc bi nga xam ne moom moo gën a rëy ci àddina bi ci élection locale yi nga xam ne rek moom la ñu dëgmaloo colikaay bi di direct news moo ñuy xamal ne ñu ngi fiy xaar fii ci biir Dakar maître Abdoulaye Wade ngir mu ñëw jàppale waa parti démocratique sénégalais mu nekk mbir bu doy waar bu jaaxal trop suñu naatango yi ndaxte ngay laajte kañ nag la waa kañ la waa parti démocratique sénégalais di bàyyi ki di maître Abdoulaye Wade mu dem ko ndaxte moom li ko dalee atum 1974 ba léegi moom dong moom rek de moom mooy dogal ci biir parti boobu te it waa parti démocratique sénégalais ñoom la ñu yaakaar ñu ngi yaakaar ci général Wade ngir mu daal di leen jàppale ci seen xeex te li ni mel moom jaaduwul tey jaaduwul ëllëg wax ak culikaay bi di libération ci mbirum taximaan bi nga xam ne dañoo faatoon bakkenam ne moom mooy ca point e culikaay bi xamal ne jàpp nañu ñaar ñuy tuumaal ne ñoom ñoo def ni mel libération du ñu xamal ne ñoom dañoo soxla woon xaalis gu toll ci soixante dix mille francs CFA loolu nag moom moo tax ba ñu attaqué woon ki nga xam ne de moom mooy taximan bi daal di koy dóor jaasi ci digg ginnaawam loolu sax moom moo ko daal di yóbbu jeexale ko ak xibaar bu neex bii nga xam ne moom la colikaay bii di euh, Sud Quotidien daal di euh, xëyee te mu jëlee ko ci site sud quotidien point sn moom mooy ne pharmacienne bii di madame Aïcha Goudiam Mbodj moom mi nga xam faite aux grandes pharmacies dakaroises ak kii di madame Aminata Gassama Baldé kooku di Aïcha Goudiam Mbodj moom moo mujjee am ndam ba ñu demee ci kanamu cour suprême colikaay bii di euh, Sud Quotidien di ñëwaat sax ca mbir ya na mu demee ak tamit jaay doole bi nga xam ne moom la kii nekk soxna ci Abdoulaye Baldé euh, bëggoon jaay doole kii di Aïcha Goudiam Mbodj jaarale woon ko euh, ca ministère de la santé wante fu mu nekk ni lépp dellusiwaat na ci yoon kii di Aïcha Goudiam Mbodj mujjee nañu ko jox dëgg lii moo nekkoon wax jullikat yi li gën a fës mesdames et messieurs bonjour les changements intervenus à l'issue du conseil supérieur de la magistrature continuent de susciter moult réactions et commentaires notamment concernant les conséquences des nominations au parfum de sanctions des uns pour leur position et de promotion pour d'autres magistrats et aujourd'hui ce sont les droits de l'homiste qui se prononcent sur les décisions du conseil supérieur de la international Sénégal et pour lui, la justice n'est pas une réalité dans le Sénégal aujourd'hui. Quant à Alassane Seck, le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, il trouve que la justice n'est pas du tout indépendante ici au Sénégal. Et dans le journal Les Échos, ce sont les avocats qui jugent le nouveau doyen des juges d'instruction. Nos confrères du journal Les Échos se sont entretenus avec maître Clédor Cirelli, maître Moussa retour inattendu du poste de Premier ministre. Dans le quotidien LAS, nos confrères nous font savoir que l'APR et le gouvernement assurent le service après-vente. En tout cas, pour le ministre Omar Gueye, porte-parole du gouvernement, il n'y a aucun tâtonnement. Et Ismaël Madiorfal le confirme dans le journal Enquête. L'ancien ministre de la Justice trouve que tout ne doit pas tomber sur le président. Il doit y avoir une sorte de fusible. Et maintenant, reste à savoir comme le chef de l'État, font eux aussi des calculs et écrivent en premier qu'Amadou avec sa grande expérience du gouvernement et de l'État, son pragmatisme et son efficacité politique, ainsi que sa posture d'homme de paix et de consensus, a le profil parfait du Premier ministre et du Dauphin. Nos confrères pensent aussi à Aminata Touré, ex-Premier ministre, ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, ancienne directrice de campagne aussi Idrissa Seck, considéré par nos confrères du journal L'Info comme la botte secrète de Macky Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous dressent aussi le profil du futur euh, Premier ministre et nos confrères se sont basés sur les analyses des journalistes et experts en communication politique comme Cheikh Yérim Seck, Alioune Ndiaye et le docteur Cheikh Diallo. Et selon eux, il y a trois cas de qui se dessinent en premier, c'est que le futur Deuxième cas de figure, le futur Premier ministre peut être un probable numéro de l'État ou de l'APR. Et troisième et dernier cas de figure, il se peut même que le chef de l'État, Macky n'en sache rien pour le moment. En tout cas, pour le futur gouvernement qui va être installé après la nomination euh, du euh, tout nouveau Premier ministre, le chef de l'État va couper des têtes dans le gouvernement. Nos confrères de Tribune trouvent qu'il y a beaucoup d'interrogations. Nos en ministres qui se sont fait distinguer par des gaffes empêtrés dans des scandales présumés vont devoir quitter le gouvernement. Autant dire que dans l'entourage du président où la guerre des clans n'a jamais connu de répit, elle est montée d'un cran avec cette annonce du retour du poste de Premier ministre. Et nous restons avec le chef de l'État Macky qui était hier à Kinshasa pour assister à la première conférence des chefs d'État et de gouvernement sur a

lui, est la seule constante au niveau du PDS et tout le reste est variable. Maître Abdoulaye Wade, encore Wade, toujours Wade au front. Cette obsession des libéraux faisant de Général Wade un éternel combat, tranche net avec nos coutumes et valeurs, poursuivent nos confrères de Direct News. Et nous parlons à présent avec nos confrères du journal Libération de l'assassinat de Mustapha Gay, taximan dont le corps sans vie a été découvert à la place arrière de son

lâche d'après les aveux de l'autre présumé tueur. Et nous terminons par cette bonne nouvelle qui figure dans le journal Sud Quotidien concernant l'affaire de la grande pharmacie dakaroise. La pharmacienne, Madame Aïcha Goudiambouch, a gagné au fond devant la Cour suprême. La haute juridiction qui a rendu sa décision hier a tranché en sa faveur dans cette affaire contre Madame Aminata Gassama Baldé. Et selon le site sudquotidien.sn visité par nos confrères du a été dépossédée de son site au profit de la pharmacie Nation appartenant à l'épouse d'Abdoulaye Baldé, ce par l'entremise du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Tout est bien qui finit bien, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.